maa ngi leen di nuyu di leen di ziar di euh, nuyu bu baax a baax suñu wajur imam euh, Ousmane Bodian di nuyu tamit euh, le mouvement M2D ak kilifa yu fi jot a ñëw tey ànd avec le président Ousmane Sonko di leen di jégalu nag ci retard bi parce que maa ngi jóge Dakar ay 5 heures du matin wante temps yi Ousmane daf may tooñ nee na dama doon benn octopède daanaka tànk yi dañu bëri dama taxaw Fatick taxaw Kaolack taxaw Kaymoor fépp fu may taxaw doon waxtaan ak ay mbokk ne leen résistance parce que loolu mooy fulla loolu mooy fayda loolu mooy jom résistance maa ngi doon toog déglu suñu wajur xalif général des Mourides mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ba ko Ousmane Sonko dem seeti mu wax ko ay kàddu yu am solo wante Ousmane bul juum bul jaawale kàddu yooyu président Macky la ko moom parce que bu nguuram ñoom ñoo boom ces enfants la kon nag responsabilité boobu président Macky moom moo gàddu responsabilité boobu donc kàddu bu xarit général des Mourides yëkkati baaxee ñu ko ñun ñëpp kooku daanaka ci gàttal ku ko moom xam na ko parce que ñii kenn ci ñoom loon gànnaay ñuy génn di exercer benn droit constitutionnel wane seen naqar wane seen taxawaay ñu jaay leen doole boom leen kooku dañ koy ñaawlu te je veux le dire ici ceux qui ont commis ces crimes seront poursuivis et punis day yàgga yàgg rek mais à la kulli al vous aurez des comptes à rendre kon nag Ousmane du ma guddal maa ngi lay gërëm di la sant parce que naam bokkuma ci m 2 wante ci opposition bi laa bokk te maa ngi jaajëfe bu baax baax nit dof parce que ce discours wax nga lépp soxlul ma ci yokkal leneen l'opposition sénégalaise bu leen may xale yi ñu leen di gën a gore dama ne opposition sénégalaise képp ku ci gis boppam ci opposition ak koo munti doon nag bu leen may xale yi ñu leen di gën a gore kon nag lu ci des xam ngeen ko je suis venu pour vous répéter le même mot d'ordre que Ousmane Sonko a répété à Dakar résistance parce que troisième mandat dañ ko fiy tere dama ne Bignona résistance parce que suul pétrole du ko tere xeeñ dama ne Bignona Casamance résistance suul gaz du ko tere xeeñ résistance résistance résistance te fii laa koy birale seconde vague du am dama ne seconde vague du am troisième mandat dañ ko fii tere lu ci des xam ngeen ko wasalaam jërë ngeen jëf mbokk yi